bëgg a xam fóor yi fa ne seen capacité ñaata la. Mm-hmm. ñu wax ko état pour mu dem saytu loolu ba fii may wax ak yow demuñu xooluñu ko lu waral loolu. te borom si ñu xoolal bu ñuy bu ñuy defee raay ñoom ñoom dañoo yàkkamte fu ñuy reyee. yéen loolu mënoon ko def boo leen amee organisation bu leer. Mm-hmm. boo leen defee démarche yi war a def nañ leen permettre ngeen def loolu. voilà a bàyyi lépp si ndoddu état aussi. waaw léegi léegi naa laa jox benn exemple en 2011. Mm-hmm. parce que chaque jour day bëgg di ñëw Mamadou Lamine Diallo ku xelam màcc ci ferraille ku xam fuur la ku xam fëndëri bu baax la moo àndoon ak ñun bi mu demee Sométa dafa xool fuur yi ne leen lii fuur yi fuuru mbalit la wax ci xam nga yooyu du ma bëgg xuus foofu daal yaa ngi dégg bu baax moo tax ñun itam bi ñuy waxtaanaat ñu demander état parce que fekk état mooy arbitre suñu diggante industrie yi naka la ñu war a def mhm. arbitre parce que xam nga la dafa ne ba bépp problème bu ñu am nañ ko wax fii ko waxtaan waxtaanee loolu la ñu wax ñu am nañ problème mais moom moom xamal la ñu gis yow mënoo nekk ministre comme man mii toog war a défendre ferrailleurs yi may défendre borom ay milliards te li ci gën a métti laa wax de dégg naa ko mu ne 32 licences moo fi am. moom Fofana. waaw en tout cas li ñu koy dégg lu bari na de. non non non parce que moo ñu rey. <laughs> yaa ngi koy bàyyi xel. <laughs> non mais ne wuy ma neex lu neex. 32 licences da ngay gis benn inde boo xam ne fële la jóge ñëw buy ñëw fii Sénégal xamal lan la yooyu ab mbuus ab mbuus balaa mu fee am si naka si mois laa wax de yore ci 4-4 yore. da leen gën a mën liggéey rek. Sénégal li muy wax moo ëpp li muy loolu am solo xam la moo tax. seen état da leen accompagner jàppale leen. Mm. mais ñun suñu état laa wax de état. Mm-hmm. historique ku feeraay amul fenn mu mos yëkkati. alors léegi jàppale.